Euh, ñu gis ni nag jamono ji dañu dañu jóge ci ci fête donc euh, ñu jóge ci fête jamono ji ñu gis que sénégalais yëpp dépensé nañ xaalis yu bëri muy góor yàlla yi comme soxna yi euh, boo doon def une analyse globale de comment on dépense de l'argent tey ji ci fête yi lan lay doon lan moo ci sa gis-gis. merci beaucoup euh, en tout cas fête moom buñ ci ñëwee surtout li ñuy wax fête religieuse souvent day am trois dimensions. Mm-hmm. da nga xool dimension économique bi. xool dimension religieuse bi ak dimension sociologique mhm. voilà mais parce que bu dante ne ci dimension économique bi nga koy xoolee bon effectivement di nga ko préparer euh, da am na yoo xam ne daf lay war ci bëggal sa sa njaboot mhm. euh, yooyu moom je pense que kenn ku nekk ak ses moyens certes que am na ñoo xamante ni parfois peut-être den ceeb loo xamante ni bii euh, ëpp na seen i seen i seen seen i am am su boobaa après ci ay jafe-jafe la ñu nekk voilà consommateur na moom dañ bëgg toujours mi nekk consommateur bu rationnel maanaam li muy dépenser toujours mi nekk en fonction ak ay moyens. Mm-hmm. voilà mais xam nañ ne souvent c' est pas toujours évident <laughs> pas toujours évident quoi surtout koo xamante ni parfois day taxale pour joindre les deux bouts euh, bu feet jotee mu bëgg a bëggal njabootum comme ñëpp c' est pas toujours évident. Mm-hmm. voilà euh, voilà après. nga gis ne activité kii la boo xam fête la boo xamante ni aussi dafa activité bëri yoo xam dañ ci développé mm-hmm. euh, ci mel ni par exemple euh, jaayum ganaar gi parce que bu neen tabaski xar yi ñooy a dox. Mm-hmm. Euh, Korité moom gis na ne ganaar bokk na ci produit bu gën buñ prisé bu baax a baax mm-hmm. ñu profité sax ci occasion bi pour massawu leen parce que grippe aviaire bi fi jaar. vraiment décimé na kii bu bari bari bëri bëri ba tax na njëgi yokkoon yokkoon yu bari parce que secteur boobu déjà euh, laaj na sax taxu jàng si ndax ay nit la ñoo xamante ni bii quand même depuis ñu jël engagement ne danañ dañ gën développer secteur bi def nañu effort yu bari bari. Mm. voilà parce que booy xool seen production bi ci deux mille entre mille quatre ba deux mille dix neuf dem deux mille vingt vingt ni mu yokkee yéeme na. parce que ku doon produire pratiquement euh, lu toll nañ ci ay douze millions cinq million nga dem ba dix huit million dem ba euh, plus de. Euh, cinquante millions. Mm-hmm. ñuy wax léegi euh, dépa yaa ngi faroolee donc wax dépassé nga presque les cent millions de têtes donc am na solo te si maquillé la boo xamante ni secteur boo xamante ni bii euh, bi day dem ba deux cent deux cent milliards plus deux cent di créer environ cinquante à soixante mille emplois directs et indirects. Mm-hmm. donc secteur boo xamante ni vraiment danañ jàppale mais jafe-jafe yu métti lañ traversé en dehors de la guerre aviaire bi leen bi leen sonal fan yi mm-hmm. gisoon nañ aussi ne alimentation aliment bi dafa yokkoon ak doole. loo doon jëndee ay 14000 mu dem ba 16000 dem ba plus de 22000. muy 30000 donc daanaka seen marge de manœuvre dafa xawoon a gën a faible. Mhm. voilà yooyu yëpp nag je pense que bu ñu bëggee améliorer euh, nourriture population il faut ñu def ci bu baax a baax parce que boo xoolee Europe boo fa nekkee euh, boo boo nee nga xam ne yoroo dara maanaam banque nga. Mhm. da nga jàpp ne tey da nga lekk ginaar. <laughs> waaw mais fii moom ba léegi day luxe la te loolu dafa war a dañ. Mhm. moo tax il faut ñu gën a jàppale secteur boobu. voilà euh, boo ko bëggee analyser ci côté côté dimension religieuse moom feet la feet la boo xamante bi dafam ay normes parce que mhm. da nga war a bégal sa njaboot kooku moom nit du xalaat mu ko ne bi bégal njabootam yàq la. Mhm. parce que au contraire voilà da nga ko war a def. ut ci yër yu bees bu dee am nga ko et cetera yooyu xëy na ustaas yi wax nañ ci lu bari ba ci seen plateau yi nga nu ci koor gi mhm. voilà bu dee dimension sociologique même chose bu neent ñaa ngi évolué ci benn environnement aussi yoo xamante bi daanaka dafa ne ba nekk ay normes da nga nga jéem a conformé wu mhm. voilà léegi nag li ci ëpp solo rek mooy quelque soit fête bi bu doon waroon nangu rek nit ñi yóbbaale la mhm. maanaam lu mu métti métti rek yow yamal ci li nga mën soo ko defee daal da nga da nga mhm. mais boo boo ko deful noonu nag mois bi ci topp yëpp daanaka a mhm. bu jàllee rek deux mois nga ci nekk tabaski ñëw te boobu aussi la dépense di gën a métti encore d' accord euh, mu mel ni am na ñoo xamante dañuy def comme ni nga wax léegi def ba def lu ñu mënul Euh, de ce fait ils sont xëy na de reprendre à zéro. bu mhm. fait yi jàllee euh, euh, ban xëy na analyse ngay def par rapport à ça parce que gis nañ ni que nekk na lu constant dem na bu ñu amul sax da leen di jabar jaral ñu dem feneen lépp pour xëy na doxal seen ay mbir. waaw parce que bu nante ne da ko bëgg a ci d' abord jëmale ko ci côté théorie économique bi. Mhm. moom dana naan rek booy consommer li ngay consommer dafay dépendre ses revenus. voilà waaw dafay dépendre ses revenus dépendre Euh, sa revenu bi lay nekk ak say besoin maanaam li nga bëgg a jënd par rapport li nga yor comme prix yow fixé woo ko marché bi moo koy fixé. Mm-hmm. voilà léegi nag bu dante ne euh, xool nga suñu dëkk yi moom bu daanaka boo xoolee li ñuy jox lu ci bari dafay wuteeg li théorie conseil. Mm-hmm. voilà parce que munoo yore luy tu teg bët koo xamante moo ëpp mooy fuuf lu mu yor nga danga ko bëgg lu mu andi nga danga ko andi sa kër lu mu waa bi yor nga danga ko yore su boobaa da ngay sonal bopp maanaam yow yaa sonal bopp daal ak coono la boo xam ne danga ko teg sa bopp te lu mu lu mënoon na ñàkk la voilà surtout nag xam naa ne kawrité bi ren métti na lool parce que dañ di ci crise en même temps prix yëpp explosé prix yi dañu yokk ak doole doole doole heureusement que mu nekk soble bee pomme de terre bi gis nañu période bi wàcc na bu baax a baax mhm. parce que sac bi ñu ngi koy amee mooy de dix mille francs environ huit mille cinq cent euh, alors que booy xool ay quelques mois ci gannaaw jamonoy màggal gi jamono ba trente mille mhm. am na sax ñu ko doon jaay cinquante mille il a fallu que service commerce euh, ñëw euh, saisir lépp pour mën ko jaay prix bu normal waaw donc mu wàccaat je pense que boobu aussi war nañ ci a gën a góorgóorlu mm-hmm. waaw comme serre beeg soble bi yëpp nga xam ñu ngi koy jëfandikoo ci réew mi tant que ñu ngi koy bay mi am quantité suffisante mm-hmm. souvent njëgi di mm-hmm. nag ñu jàppale leen ci leneen yi voilà parce que soble moom moo comme moo ci am ko day yàqu voilà booy fertali ko daaw soble si bëriwoon na ba nga ni bii baykat yi dañ doon obligé di gas di ko suul di ña bu ñu sax dañ dem ji si ñu bari ñu sotti ko ci tali bi mm-hmm. waaw boo wax 3 mois 4 après ñu dem ba ne soble manqué na ci dëkk bi ba ñu ngi mm-hmm. jaay sàgg 30 mille ci lu doon jar mooy di 10 mille francs xam nga loolu yoonul maanaam mm-hmm. dañ ci tiré enseignement c'est vrai am na benn kii bu ñu def noonu mooy marché d'intérêt national bi mais euh, fi mu nekkee sori na bon bu dante ne koo xam ne day day day ñëw am en grande quantité di jaay foofu nga ko stocké baax na mais dafa am solo daal nit ñi fa ñuy bàyyee mm. affaire bi jege mm. waaw parce que bu dante ne am nga ay camion mm-hmm. nga jël ko yóbbu quelque temps après nga bëgg ko dellu si pour jaay ko benn côté euh, daanaka boo gisee sa sa sa sa yi nga waroon am wala sa bénéfice li moitié bépp ci kaw ci transport bi la jëm voilà mais bu la jege woon tuuti mm-hmm. voilà moo tax il faut ñu gën cee réfléchir gën a multiplier points yu mel noonu mm-hmm. voilà bu mag bi nag mën na nekk marché d'intérêt bi mais ñeneen ñi ñu am foo xamante ni moins mën nañu mën conserver seen produit mm-hmm. voilà di di améliorer bu la nee bu jëndee cinquante kilos yi ba def préparé ko lim ci perte day bëri par rapport bu dee produit importé bi. Mhm. wala bi jóge Maroc wala bi jóge France. Mhm. bu dee cinquante kilos la mën na ci perdre deux ba trois maximum. mais bu Sénégal bi mën na dem ba perdre lu ëpp dix kilos. d'accord kon ñun utiliser suñuy gàncax. Euh, comme ni mu waree xëy na pour gën a jugal suñu économie. loolu yëpp suñu chercheur il faut jox leen ay mooy gën leen jàppale bañ gën a améliorer qualité bi ba nga xam dana dem ba am nga am même qualité communautaire bi jóge France wala bi jóge Maroc parce que yooyu kii la rek chercher la du leen d'autant plus que existe na déjà da nga xool rek noo koy mën a transposer donc wala transporter ko fii jëm ko adopté waaw je pense a góorgóorlu bu baax a baax. d'accord mais tey euh, waa comme sànq rek euh, dafa laal benn point boo xamante ne mooy maanaam li nga xam ne moo soxal euh, soble bi ak pomme de terre bi mun nañ gis ni ki consommé local bi <laughs> mun nañ wax ni ki ñu ngi ciy sóobu parce que récemment rek soble soble may mi tour na bu baax a baax ci biir marché bi ak pomme de terre bi mais est-ce que le fait que yi di utiliser soble may bi ak pomme de terre bi est-ce que réellement am na impact ci économie bi ndax melul ni rek tey. tey ji euh, ñu dem rek jëliwaat euh, soble importé bi maanaam di ko utiliser ci biir. non mënul yem. Mhm. mënul yem parce soble yaa ngi ko wax soble mbay mi nga wax ça veut dire que ñi ci réew mi lañ ko béyee. waaw tant que ñi Sénégal dañu am ay ay ay euh, bu dente ne sax mbay mi pare na période la boo xam dañu xaw a gérer tuuti les importations pour mën a permettre ñu écouler seen production. voilà donc ça veut dire que foofu seen chiffre d'affaires dafay gën a amélioré wu voilà te ni ñuy defee noonu ci soble bi ko defee noonu ci pomme de terre bi je pense que yeneen daal rek noonu la war a noonu la war a mën a demee voilà ñi nga xam ne ñi ngi bay tamate ñi nga xamante bi ñi ngi béy ceeb bi ah ceeb waalo bi ah, ak feneen ak feneen ñëpp a chaque fois dañ la war a mën a jàppale ba toujours ñu ñu ñu production locale bi di di di mën a écoler facile plus voilà loolu nag Euh, bu dencee mbirum càmm par exemple en période boo xamante bi état doon na ci signé convention ak euh, importateurs yi. Ah, mhm. commerçant yi. ina ko ak ñooñu pour que en période ñu jënd ceeb bi avant ñu jënd ci bitim réew pour compléter yeneen yeneen denrées yi aussi je pense que noonu noonu ci war def daal voilà donc côté boobu aussi def nañ ci effort yu bëri bëri bëri daanaka boo xoolee léegi mbayam soble communautaire dañ dem ba couvrir lu mat presque quatre donc ça veut dire que dans les deux ans trois ans maximum cinq ans vraiment mën nañu am autosuffisance ci ñaar ci ñaar côté bu ñu ah, continuer ci ah, doxalin moom vraiment effort yu bari bari moo moo am waaw léegi nag après amélioration qualité bi dafa des moom mhm. parce que maa ngi lay wax ne am na ku ma doon jokkook fan yële passé moom ci benn entreprise lañ liggéey bu nga xam ne dañuy defar ay frites mhm. voilà moom dafa bëgg tellement production locale ba day obligé moom la jënd mais dafa à un il était obligé mën a muy mixer les deux mhm. parce que ba perte dafa bari cinquante kilos presque daañu ci perdre lu mat dix parfois sax mu dem ba quinze kilos. Ah alors que bu naan bu pomme eh, de la euh, parfois deux kilos nga ci perdre parfois trois kilos yenn saa sax du deux kilos donc en même temps conservation. mën a bële boo ko defa defee plus d'une semaine rek dix jours commencé am problème maanaam bi day gën a bëri. Mhm. bële mën nga ko yor presque un mois. du def mhm. ah, donc science doon la njëriñ xool waral lale nga jéem ko adopté pour gën a dooleel encore euh, euh, doole ak ay moyens suñu producteur lu koy. waaw léegi man xam nga euh, professeur man benn affaire sànq yaa ngi koy wax bu boole ci suñ kii sociologie. Mm-hmm. daf ci am loo xam ne tey jii am na ci ay habitudes yoo xam ne dugal nañ ko ci. fête mm-hmm. surtout ak koor ak korité ba tax na léegi sonnal na dafa dem ba sonnal sénégalais yi. Mm-hmm. suukaru koor. <laughs> ndawtal. Euh, euh, non non xaw ma lan euh, kii sukkandiku ak kii ak beneen bi. ak boobu non am na ay affaire yooyu daal. <laughs> te que ñun ñi amuñu moyen yooyu. murum koor dégg nga. voilà ay mu bon. bon murum koor ci la bokk. ci l'islam mais gars yi ñoo koy exagéré par rapport voilà waaw waaw waaw même foofu tamit gars yi ngi koy jéem a maanaam du ñu def lii kii di wax loolu nekk na benn poids léegi boo xam ne ci koo xam ne amul amul moyen yooyu. waaw euh, côté boobu man laa bëgg euh, euh, tey jii est-ce que naka la ñu war a def pour sensibiliser nit ñi ba ñu delluwaat ba loolu yëpp ñu dindi ko. waaw parce que man léeg-léeg ma tombé ci yenn émission. ci yenn association féministe yoo xamante bi ñu ngi sensibiliser nit ñi c'est vrai que li ñu am tendance bariwul nag voilà mais yooyu ñëpp ñoo ci war gën a góor góorlu voilà parce que léeg ñoom ñoo ko quoi ne ñun jigéen ñi danan danan dañuy dañuy liggéey lu bari xëy yàq ko parce que autant li ngay waxee ci sukkaru koor autant loolu nga waxee ci xew yi voilà et xamante ni pendant cinq ans dix dem na fu nekk mu liggéey dajale dajale am bokk ci ay yu bari mais bu xew ñëwee daanaka la économie bi yëpp da ci yemale après war a prise de conscience la waaw ah, il continue di sensibiliser nit ñi rek am na ñoo xamante ne bon fi ñu teg mbir mi la alors que parfois du foofu. waaw ah, fan yi passé maa ngi ci waxtaan ak kenn fekk ñu ngi traversé benn cité mën na ko fii ñaata at nga fi def. mun naa mën na ko est-ce xëy gis fi ay xew bu rëy mooy de mën na ko pourtant ñu fii ay borom baakaar nga fi nekk mun naa mën na ko waaw mën na ko problème yëpp loolu après mu limal ma ñaar ba ñett ñoo xamante ay voisins am lañ ñoo xamante wi ñëpp xam nañ ci dëkk bi mhm. ñu ñu am yàlla dénk nañ asitur vraiment macha allah mhm. man nag est-ce yooyu yëpp amul njëriñ voilà maanaam euh, kooku moom que association féminine les associations féministes ni ñu ci def noonu baax na mais ñëpp ci war a jàpp waaw ñëpp ci war a jàpp ba jéem a changer mentalité parce que développement moom mënoo ko wax tant mentalité évolué wu mhm. impossible impossible voilà ñun nag loolu loolu mooy suñu problème diw def na lii su deful loolu danaa danaa jàpp ne mënuma ko alors que du loolu mhm. parfois sax li ngay xalaat keneen ki ñeneen ëpp yow li nga mën dëgg dem ba dugg ci yoo bi xam nga daaw ak gis nañ fi ñu wax koo xamante par exemple euh, war a war a war a jabar am doom war a ngénte côté bi kenn la woon mhm. yorul xaalis mu jaaroo ko mu dem agressé bi ba rey ko uniquement pour jël xaalis pour ah pour mhm. lan parce que xëy na ni société bi di xoolee la ah kii de soxnaam am na doom amul lu mu ko lu mu ko tere wala mhm. a comparer loolu ak agressé nit yi yooyu nag il faut mu am voilà ku nekk leader yi voilà ñoom ñoom ñoo ci war a continuer surtout les les les leaders d'opinion continuer association ci quartier yi ku nekk di ci wax ku ne jàpp ci yi nga xamante ni nag ñoo jiitu doo ci yem di ko wax rek mais da nga koy wane. Mhm. waaw jëm ci quartier bi ah diw ak diw kat bi ñëpp nangu nañ kenn ëpp leen fa ay moyens gis ngeen bi xew amee seen kan ñu ko defee. lañ mhm. bëgg nag ñëpp du doxalee nii. bu dante ne loolu mi ngi continuer je pense que avec le temps dina dina xam nga xam nga parce que booy remonter très loin jamonoy président Mamadou Dia mhm. euh, je pense que effort yu bëri amoon na ci waaw ba mujj bi sax kuñ ko fekk ngay def dañ lay sanctionner voilà loolu la voilà <laughs> foofu laa bëggoon ñëw xam nga sax maa ngi doon dégg Ablaye xaw ma ndax euh, kii mais Ablaye Wade mhm. mu ngi doon jéem a tamit euh, ci affaire u maanaam takk yi xew yi dégg nga yooyu mu ngi ci bëggoon na def dara xaw ma ndax def na ko est-ce que tey jii tey jii fu mu nekk nii est-ce que jarul maanaam ñu indi ay sanction est-ce que jàngu ko ci woof ma pour mun a euh, euh, maanaam delluwaat nit yi pour ñu mën a bàyyi yàq bi. Euh, waaw xam nga pour man daan li ci ëpp mooy waxtaan bi rek. c'est vrai que mën nga mën nga mën sanction mën na ñëw mais je pense que bu dente na conscience na ngi nit ñi voilà denc ci mën a gën a góorgóorlu dañ ci gën a góorgóorlu parce que nit ñi nit seen bopp ñoo bëgg puukare gis koo xamante ni parfois li ñuy wax yenn événement yi damay jël exemple rek lu mel ni tabaski bi ñëw foo xamante bi coono gi muy daj yëpp ci tabaski bi mais mu ci dépensé te pourtant du jël sax du jël il ne prend même pas yi soin wajj di matal euh, juróomi waxtoom munoo munoo tëkkale julli par exemple ak euh, dépense benn jour ci fête et cetera moo tax ma ne yëpp question de conscience. Mhm. waaw gis naa ne moom vraiment prêcheurs yi ñu ngi ci bay seen wàll. bu mhm. baax a baax a baax. moo tax sa temps d'antenne bi ñuy am pendant le ramadan xëy na bu weesoo aussi war nañ ko mën di amaat et cetera voilà seen ci en tout cas daal ku ci nekk. parce que mhm. société moom noonu la bu ñu koy tabax dañuy xool d'abord ban type de société lañ bëgg. yenn citoyen nga bëgg kenn ku nekk nag bay si waar ci loolu. c'est vrai que ñëpp yemuñ mais ñi nga xam ne jàpp nañu ne xëy na yàlla dénk na as tuut ci mbirum xam-xam ci mbirum sensibilisation ainsi de suite ku nekk fi nga xam ne war nga ci mën a montrer exemple rek nga góorgóorlu ci côté boobu. Mhm, c'est important alors euh, ñu gis ko Sénégal bari ay événements yu fiy am Korité Tabaski yeneen ak mege yeneen ak yeneen ma euh, événement religieux yu nga xamante am na fi mais économiquement est-ce que Sénégal mi ngi ciy yëg boppam comme ni mu waree parce que gis nañ que euh, durant ces événements dañuy dépenser lu bari ci côté ak yeneen dépenses yu nga xamante ne aujourd'hui dañ koy def mais économiquement parlant est-ce que Sénégal mu ngi ci yëg boppam euh, chaque événement comme ni mu waree. Euh, tout à fait d'ailleurs euh, boo ci amee ay commerçants. wala ay tailleur ak ñeneen ñeneen nga interroger nga laajee seen chiffre dafa dafa explosé ce qui n'est pas mal euh, mën naa jël juste benn exemple rek comme ñu temps bi da koy permettre noonu benn étude boo xamante ni bii sama collègue bi ñuy wax docteur Soumen Assou Diagne ak euh, ay collègue am yu nekk université Alioune Diop de mbay defoon nañ ci benn étude mm-hmm. bon y a maintenant cinquante ans de cela ou six ans euh, pour doon évaluer impact économique du màggal de Touba. Mhm. gisoon na ne màggal gi chaque année dina générer euh, deux cent cinquante milliards. Mhm. économique voilà boo koy répartir entre les dépenses donc d' organisation et voilà euh, effectuées par les pèlerins ak travaux yu ñu def ak yeneen yi day dem ba foofu voilà euh, entre temps. population bi yokk na ñiy dem yokk nañ cela veut dire que forcément impact bi day gën day gën yokk également mhm. d'ailleurs ren bi sax ci màgg gi passé nañ équipe pour doom jëm actualiser données xam naa ne peut-être dans les mois à venir di ngeen di di yooyu mhm. voilà pour montrer que euh, tabaski aussi noonu lay mel mhm. voilà donc événement boo xamante bii secteur yëpp dañ ci gis bopp ñu jaay xar xool leen ak commercant yi ñeneen ak ñeneen mm. ku ci nekk daanaka euh, ak dépense yi ménage di effectué mm. euh, dañ dañ koy anticiper lu bari mm. maanaam loo doon war a dépenser da ngay économiser ba période boobu parce que loolu la aussi booy épargne parce que souvent l' épargne rien d' autre qu'une boo xamante présent présente nga nga nga nga renoncer ko pour une consommation future voilà période boobu nag nga nga koy def ak doole donc du coup bu dante ne xool nga ko da gis ne effectivement lu am njëriñ la ci ci ci ci ci ci ci économie bi. Mm-hmm. lu am njëriñ la ci économie bi mais gis nañ aussi que durant ces événements surtout Korité bi gis nañ ko chinois yi ak turcs yi aussi présent bu baax a baax ci Sénégal. Mm-hmm. est-ce que tey sénégalais yi doomu sénégalais ni ñu ci waroon a gisee seen bopp carrément dina ci am bu ñu xoolee euh, xëy na jéggaani bi nga xamante ni tey ci nemmeeku nañ ko ci. Euh, waaw parce que ñoom nekk jamono mondialisation. mondialisation moom mooy <laughs> daanaka léegi frontière amatut euh, voilà ku ci nekk fa nga jàpp war nga faa mën a amee dara rek da nga fay da nga fa da nga da nga fay jaay wala nga jëndi voilà sénégal yi nag comme créé wuñ lu bari <laughs> entreprise aussi bariwul lu si bari donc da nga jël bitim réew moo tax daanaka euh, ñooñu faw ñu di seen bopp que mu ci dara. Euh, am na ci ay jamono sax maa ngi rappelé encore benn grande enseigne française bi nekk fii. Mm. yi ñu doon wax ne vraiment. na fi jógee na fi jógee ah. Mm. pas nommer le truc pour éviter de faire la publicité gratuite voilà mais jamono jooju par exemple dafa naa ci benn waxtaan ak seen benn reporter mm. nga xam ne kooku du fa jóge ndax dafa réussir offrir au consommateur sénégal loolu intéressé mm. parce bi moom li ko intéresse mooy sa satisfaction personnelle loolu mm. neex daal théoriser ko mais s'il est satisfait il reviendra toujours voilà alors kooku da koo def ñaata yoon ngay gis ku ñëw ci benn boutique quartier di jënd dara ñu xëcc la ma produit jox la ko mu poussière poussière ñu fomp ko wala def ko mm-hmm. leneen mm-hmm. wala sax léeg-léeg waa ji xëcc benn produit nga gis beneen souris bu tëb et cetera et cetera mm-hmm. wala seen ay ay ay kafaar ainsi de suite alors que espace la yoo xamante bi yaatu na set na te aussi bu tàng dëkk bi dafa faral tàng am na yoo bu ñu fa xasee bu dugg dund yàkkamtee génn waaw <laughs> et donc pour montrer que effort yooyu la ma nekk au contraire a réagir te nañu jëm offrir loo xamante bi service bi dina méngoog li am fii mhm. voilà parce que boo xoolee dem entre affaire secteur bi ñaari ñoo fa nekk comme euh, ñaari euh, France euh, entreprise française boobu ak kii bi anglaise bi fi nekk daanaka yu sénégalais yi fi ñëw amul leen loo xamante ñu leen koy envier mhm. voilà donc parce que dañuy dafa loo xamante bi ñëpp gis nañ ko mhm. tey maanaam ñooñu ci côté boobu lañu war a yëngatu parce que am na ku fi ne jiitu woon mhm. am fi 4 ba cinq magasin euh, mais dañ jàppoon ne kooku presque di haut de gamme lay def voilà pour nga dugg fa faw nga nekk borom barke mhm. parce que y avait pas la proximité mais loolu c'était archi kële bi mu ñëwee dafa ñëw gën a démocratiser l'accès waaw ñëw installé ci banlieue bi voilà man ak ñii nag foofu la ñu war a góorgóorlu mais comme la noyyi fi boo deful dara ñeneen ñëw jël ko ci sa place donc encore une fois munoo gën gis bopp bu baax baax tant que doo góorgóorlu di produire. di nga góorgóorlu ci produit mais parfois aussi di nga soxla accompagnement parce que gis nañ daal yi nga xam ne par exemple dañ koy jaayee ngaay korite bi góor ñi bëggoon nañ ko loolu sax mais euh, da ngay gis que nasaraan si dañuy ñëw jël ko yóbbu waat ko seen réew taf ci seen marque verniwaat ko xaw ko jékki-jékkal rek ñëwaat jaay ñu ko un peu beaucoup plus cher est-ce que aussi euh, mm-hmm. soxlawuñu accompagnement xëy na pour pour gën ko moderniser sénégalais seen bopp. waaw loolu mënut a ñàkk accompagnement moom lépp la état daf ci war a dugal loo xam jàppale ci baax ndax au retour da nga ko jàppale bu ci bu njëkk bi mooy mbirum emploi mhm. parce que bu dee dox na da nga créé emploi su boobaa moom état euh, da ci gis boppam ndax ku ci liggéey sa liggéey dox danga nga fay impôt mhm. en plus aussi bi dox dana fay impôt donc état dana ci boppam voilà mais bu dul en même temps aussi il faut nga ngeen jàppale pour ñu gën a améliorer seen qualité. Mhm. bon sànq wax naa la ko ne la consommateur bi satisfaction personnelle rek moo ko intéressé. parce que daal yoo ngi wax noonu euh, production locale bi théoriser lu la neex. Mhm. ci consommer local. consommateur bi tant gisu ci boppam bu demee du ñëwaat. voilà man ci benn exemple bi may faral jox étudiants yi bon jamono jooju war na léegi peut-être cinq wala six ans euh, jënd na benn benn sac euh, cuir bu rafet bu jógoon ci conteneur yi pratiquement <laughs> euh, trente mille trente mille francs la woon yaakaar naa voilà c'est ça yor yor ko at ñaari at ak nangam amul benn problème amul amoon juste envie mhm. xam benn booy bu jóge bu dëkk sama benn jàmm bu dëkk ngaay. Mhm. donc na ma booleeg ma koy xelal. kooku noonu déjà ma ne ko même modèle bi mu xool ko ne mën na ko defaraat mën a defar mais nii mais 45. Mm-hmm. man ko amul problème léegi ma bëgg ca ut ñaar mais ma ne bon je préfère am benn problème que am ñaari <laughs> problème. Mm-hmm. ah na ma jox benn dama ma jëndal beneen. voilà wala laaj la avance 30 mi nga jox ko déjà délai de livraison respecté wuñ ko. Mm-hmm. mais bi nga ko jotee daanaka même pas de semaine deux semaines. kii bi jàppukaay bi foog na. nga dem ñu defaral ko mu dañaat deux fois ba trois fois et cetera. Mm-hmm. alors que bële yor yor nga ko lu mat trois ans quatre ans xamu woon loolu. Mm-hmm. te en même temps prix bi moo gën a moins cher aussi. voilà donc loolu déjà tax na ña ko gisoon ci man bëggoon ko. Mm-hmm. gisaatuñ ko donc dañoo bàyyi dañ doon wax. mais man mi bëggoon deuxième aussi jëndaatuma ko. temps bi moo tax man la mooy accompagnement bi il faut mu nekk surtout nag dans la qualité. c' est très important sinon nit ki mënoo ko forcer bu dente ne yaa ngi jënd ay chaussures importées mhm. bu dee am nga sa 10 000 wala sa 15 000 jënd ko fonctionné ci ba école yi tëj mi mu normal. Mhm. ah léegi nga bëgg a pro euh, favoriser le consommer local. Mhm. nga jël même montant bi jëndee ko daal yoo xam ne ñu ko defaree fii 3 mois 4 mois après les sociétés ne plus fonctionnelles. Mhm. bu naan te amaan nga 10 000 loolu yëpp day monter ne bi nga xam am na solo trop trop trop pouvoir public dañ ko war a toll. c'est important euh, mu di loo xam ne am na solo lool au delà de xëy na daal yi ñuy sol sax lekk bi ñuy lekk sax. parce que ñun Eh, sama genre bu bëgg yu gaaw yi xaw a yombaale da ngay préféré jënd benn frite gelée même bu fekkente ne nekkul boo xam ne fii lañ ko defaree que jënd euh, pomme de terre bi xay na di defar ak yooyu ça te prend beaucoup plus de temps et puis bële day xaw ak jàppandi quoi ci goût ak yooyu noonu donc loolu aussi je pense que bu ñu moderniser yëf yi dina gën a permettre euh, mu woo population bi pour ñu adhérer à que ñu consommer local ndax xëy na foofu la ñu gën a gisee auto économiquement suñu bopp euh, ci réew mi fii nii waaw consommer local moom boobu la ñu ci théoriser. Mhm. léegi nag euh, yow boo nekk autorité yemul rek war a yem ci di ko di ko wax rek mais da ko war di jëfe ñu mhm. important. Mhm. voilà tey day mel ni mbirum ceeb rek local bi ñu wax noonu xam nga ñi nga xam ñoo jiite réew mi mën na woon ah les codes ñu ngi wax nañu jëfandikoo ceeb bi ñu béy ci réew mi donc man état fépp foo xamante ni man maay jënd maay fay déjà man ceeb réew mi rek laa fay jox. que mu nekk dans les universités que mu nekk dans les casernes. ah que mu nekk a la présidence mhm. assemblée nationale mhm. mu institution yëpp mhm. nga xam ne lu ci local kenn du fa lekk leneen mais déjà exemple booy montré voilà mais ko su boobaa nag bu dente ne population yaa ngi ci exhorté dina nangu waaye yéen lekk leen riir local man bàyyi ma toog fi ma toog ba léegi parce que bële moo gën a bakkane ah ku am astuce tuuti danaan mu gënuma bëgg lu baax ah, et cetera voilà mais li am da nga koy accepter après ngay gën a liggéey. di ko mhm. di ko di ko di ko améliorer. waaw parce que man loolu laa gëm. waaw c'est important ñu bàyyi la xëy nga wax le dernier mot par rapport ak économie bi. ni muy doxee gaspillage beeg yooyu noonu ban message nga ciy lancé. Euh, waaw bi euh, xam na rek daal réew moom laa ko àll liggéey rek moo ko mën defar. liggéey rek moo ko mën a defar donc euh, moo tax képp koo xamante ni bii yaa ngi yëngu ci ay mbir ba nga ci mën a góorgóorlu bu baax a baax waaye aussi ngay ngay yaxanal. Mhm. nga yaxanal pour man di avancer ci ngay def voilà mais c'est vrai que bu dente ne déjà li ngay gagné bëriwul parce que boo xoolee su réew yi ak réew yi développé yi loolu mooy seen différence souvent dans ces pays là le métier nourrit son homme mais fi am na métier yoo xam ne boo ci nekkee daanaka dañ ci tax rek di ci dund mais pour nga am ci sax loo yaxanal day xaw a si tuuti voilà mais aussi liggéey ba denc asi tuut xëy rek ci benn jour euh, dépassé lépp ci ay xew ay cérémonie je pense que loolu moom c'est des choses yoo xam ne lu ñu war a mën a buñ ko defee daal mhm. euh, voilà te gëm naa ne daal euh, buñ ci góor-góor ku nekk di ci bay sawàll di gën a sensibiliser nit ñi nit ñi dañ gën a liggéey voilà koli àll s'il y a quelque chose qui fait dynamité c'est le travail sans le mhm. travail on peut pas s'établir <laughs> le travail paye alors Aniwa Genvais ñu ngi si jàmm Euh, waaw di leen nuyu di nuyu président Souleymane Sow. di nuyu bureau waa bureau bi yëpp di nuyu aussi suñu frère bu ñuy wax Baba Ba. waaw nekk ci ay jafe-jafe di ko mu ah, génn ko ci jàmm ak salaam. Mhm. mi ngi noonu ñu ngi leen di ziar bu baax a baax man fàttewu ma leen de <laughs> en tout cas si yéen laa bokk ñu lay jaajëfal di la jox rendez-vous moo ko sama.